porte bi nekk fi <laughs> eh, bu bees baa ngi noonu waa challenge bi ñoom ñaar la porte bi ci ginnaaw la nekk keneen ki ne la nekk ah. <laughs> Eh, bul dugg ci loolu de.